tey ñuy dalal euh, ku ñuy woowee Seyni Tall moom responsable politique la bu APR euh, ci Grand Yoff nekk chargé de la communication Benno Bokk Yaakaar ci Grand Yoff di membre pôle digital Benno Bokk Yaakaar euh, ci Grand Yoff nekkit président bu mouvement leeru yaakaar ak moom ñu fas yéene waxtaan rek ci lu jëm ci élection législative yi wante itam li nga xam ne moom mooy élection bu Haut Conseil des collectivités territoriales yi nga xam ne kon euh, bëgg na caa bopp monsieur daal ñu ngi ni nuyu. asalaamaaleykum Ndofène maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu mbooleem ña nga xam ne ñu ngi diglu wala di seetaan effectivement seen info maa leen di nuyu di leen tatagal di leen ñaanal également aussi yàlla euh, defal leen jàmm defal leen xéwal bu baax a baax. Euh, monsieur Tall sama laaj bu njëkk rek xam naa ci élection législative yi lay jëm. gis nañ euh, Benno gannaaw bi nga xamee ne ñàkk nañ euh, lii di euh, locales yi ñàkkati élection législative yi foofalee ca Grand Yoff ana lu waral li ni mel. waaw mais déjà damay jaajëfal ñi yëpp di yëngu di œuvrer véritablement pour le Benno Bokk Yaakaar l'ensemble des responsables et des militants sympathisants de la grande coalition la coalition Benno Bokk Yaakaar maa ngi kenn ku nekk ci ñoom di nuyu aussi mbooleemu. bu dëkk Grand Yoff euh, di nuyu ñu rawatina nag euh, ñi nga xam ne wax dëgg yàlla dañ may safoo man Seydou taal nekk samay militant nekk samay am di jàmm nekk ñoo xam ne dañ ma bëggal jàmm mais également aussi bëggal ko réew mi waaw la ma posé comme question question bu am solo la mm-hmm. parce que dañoo dem ay élection locale am niñ ci demee woon ñu tasaaroo woon nag ci lu bari euh, ñu amoon ci ay candidature yu bari biñ ñëwee ci législative yi nag ah ñu boolewaat suñuy dool yaakaar na nag boobu bu ñu boolee suñuy doole rek war nañ cee mën a am ndam mais li yàlla dogal bi ñu boolee suñuy doole ah score bi sax dafa gën a métti kon nag ma yaakaar ne rek nag kon euh, quelque part il y a des gens qui n'ont pas fait leur job du ma ci génne sama bopp parce que xaw ma peut-être na nekk man aussi mais dama jàpp ne rek y a quelque chose qui n'a pas marché dans cette machine là parce que chaque fois bu président de la république moom ci boppam bu soxlaa ca Grand Yoff mm-hmm. day am la majorité bu bu jéggi dayoo lay am sax mais ñun bu soxlaa rek di wuti lu mel ni élection locale wala élection législative rek comme ni on perd les élections donc je pense que ci ñun suñu bopp war nañ xoolaat dafa càmbar si suñu biir est-ce que problème bi du ñun ñun ñi nga xam ne ñu ñëwee woowee suñu bopp ay responsable ca biir Grand Yoff parce que véritablement Grand Yoff aussi à Grand Yoff il n'y pas une bonne organisation de Benno Bokk Yaakaar ñu wax ko benn yoon ñëpp comprendre ko xam ne que sans organisation sans sans que ka xam ne war nañ koo jox gëdd joxuñu ko gëdd ñuy jox ay gëdd ñoo xam ne wax dëgg yàlla ñeneen ñi ñoo leen ëpp njariñ vraiment y toujours problème parce que euh, politique du caaxaan voilà politique c'est une affaire très sérieuse boo xam ne kenn ku nekk ci ñun nga xam ñu ci yëngu war nañ comprendre effectivement ne politique du caaxaan on n'a pas une bonne organisation on n'a pas peut-être la bonne communication vis-à euh, envers des populations suñu peut-être suñu communication baaxul wala soit suñu comportement ak ñoom am na problème je pense que yooyu yëpp c'est des choses yoo xam ne war nañ ko jàngaat xoolaat suñu bu baax a baax ci biir Grand parce que waa Grand Yoff ay nit ñu baax ñoo fa dëkk ay nit ñu xam seen bopp ñoo fa dëkk léegi nag yow bu fekkee xamuloo sa bopp wala xamoo nooy doxalee ak ñoom ñoom aussi dañuy doxal li ñu war a doxal rek mu parce que fii kenn forcé wul kenn kaay votel diw teguñu fi kenn paaka wala jaasi ne ko kaay votel diw par la force yow yaa jóge sa kër de façon volontaire nga dem vote kon donc nag bu fekkee ne que ñoom de façon volontaire ils ne votent pas pour nous ils votent pour euh, euh, euh, l'opposition comme ni ma la waxee rek Euh, am na ñetti facteurs yoo xam ne dañ ci war a bàyyi xel. comme ni ma ko waxee léegi benn bi moom mooy suñu relation ñun ak ñoom suñu comportement beneen bi suñu communication bi nga xam ñoo ngi koy jàllale beneen bi également aussi mun na nekk véritablement euh, org manque d' organisation parce que amuñu organisation au niveau local il n'y a pas une bonne parce que tout le monde se prévaloir être euh, ñu jox la gëdd bi jox la cër bi. ñenn ñi pour ñenn ñi soit ñi nga xam ñu ngi nekk ci kaw parti bi ñoom xamuñu organisation bi nekk ci biir Grand Yoff xamuñu ko ñoom ñooy tànnal seen bopp ay responsable te alors que en réalité pour nekk responsable ci d'abord pour l'APR il faut avoir un comité te malheureusement beaucoup de gens sont devenus des responsables sans avoir un comité amuñu comité amuñu comité alors que nous on nous avait demandé de créer de mettre en place des comités pour massifier le parti à grand maintenant da ngay gis ku tëb tëb rek ne responsable la sans comité sans kenn soit sax boo demee moom kese la famille bi yëpp moom kese moo ànd ak président ba pare il se prévaloir le titre d' responsable. je pense que cette désorganisation là. Mm-hmm. ne joue pas en notre faveur. ça joue véritablement en notre défaveur. et je pense qu'il est temps de réorganiser tout cela pour avoir euh, une bonne coalition à Grand pour faire face à euh, l'adversaire Euh, adversaire boobu sax euh, ci laa ñëw lim nga fi yoo xam ne peut-être moom nga jàpp ne moo tax nga ñàkk mais est-ce que tey aussi li nga xam ne kii di euh, Khalifa Ababacar Sall ak taxawaay bi nga xam ne am na ko Grand Yoff ni mu fa mel est-ce que tey itam bokk ba pare mu dem bokk ci coalition nga xam ne moom mooy Yewwi est-ce que tey nekkul itam loolu pesé na si bu baax a baax. bon je ne dirais pas ça parce que xalifa Sall bokk na élection yoo xam ne président moo soxla mu gagné. comme donc je pense que waa Grand Yoff bëgg nañ Grand bëgg nañ président président sax lañ gën a bëgg Macky Sall gën a bëgg sax Khalifa Sall. Ah, waaw loolu laa jàpp parce que chaque fois bu président soxla bu ñëwee Grand Yoff day gagné Khalifa Sall sans problème parce que aux dernières élections en deux mille euh, dix neuf élection présidentielle yi on avait eu presque vingt quatre mille ba vingt cinq mille presque voix euh, ñoom seen bopp ils avaient eu combien ils avaient eu donc je pense que euh, le problème comme ni ma la ko waxee du Khalifa Sall ah, parce que Khalifa Sall n'a pas fait grand chose à Grand Yoff qui mérite que nit ñi di rey seen bopp di daw si moom ci c'est de par notre désorganisation c'est de par notre disparité ci Grand Yoff ni ñu mel ni ñu jaxasawee parfois les gens ne se retrouvent pas ils vont aller voter autre chose ils ne votent pas le Benno Bokk parce que dem nañ ba nit ñi que ñoom ñu en exergue le président de la République wala la politique du président de la République wala la ligne de conduite de la coalition de la même ils mettent en exergue leur mentor maanaam nga xam ne Euh, moom moo jàpp ne moom mooy leader wala soit quelque chose comme ça léegi su defee ñooñu suñuy xëccoo lenn te jotuñ ci nit ñi mun nañ mer ne bon comme jëluñu diw man bon duma ci rey sama bopp damay toog sama kër parce que législative bi on a vu des des gens qui se disent responsables et qui ne sont pas allés sur le terrain mouiller le maillot on en a vu bari na ci du ma tudd turu kenn mais nag kenn ku nekk bu dégg sama wax ji may wax ni euh, ku ci ku ci ku ci am doxalin bu mel noonu war na xàmmee boppam xam ne que nag président jiwu ko loolu. waaw bu ñu ñëwaatee ci législative yi surtout résultat yi au niveau bi yoon damay génn grand yëpp niveau national lay wax tey euh, li ngeen xam ne am ngeen ko nombre député bi ngeen jógee ba wàccaat euh, ba wàccaat ci li nga xam ne moom mooy quatre vingt quatre vingt deux député euh, yéen a amoon li nga xam ne mooy majorité bi donte amagu leen woon majorité absolue balaa Pape Diop li nga xam ne mooy rejoindre est ce que tey loolu mënuñ ko jàppee ab défaite daanaka défaite rek la. waaw boo ko boo ko jàppee defet bon xam nga ngeen daanu waaw mais ku nekk ak ak lecture am <laughs> boo ko jàppee defet mën na nekk def mais man jàpp naa ne du defet encore une fois parce que peut-être dañ doon cent cent am nañ quatre vingt euh, dañ doon wut ci cent soixante cinq yi ñu ngi doon wut peut à la limite cent trente cent trente mais on n'a pas eu ça on a eu moins que ça mais on se contente de cela parce que c'est des Sénégalais de dignes Sénégalais de honnêtes citoyens qui sont allés voter et nous donner les 82 députés. On ne va pas cracher dessus, on va l'accepter et savoir qu'effectivement, il y a des gens qui n'ont pas voté pour nous, et mais ces gens-là, ils restent des Sénégalais. Et que Taïbo Khole Taï, ni demain, voilà, je ne vais pas jusqu'à dire que je m'en réjouis, mais il faut s'en réjouir pour la démocratie sénégalaise. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'au moins, buñ demee assemblée dootu amati absent absent yu bari parce que boo absenté voilà quoi li li gars yi ñàkk yaa donc nag on a chuté fi ñu jógee dafa sori te boo xoolee si on perd toute la région de Dakar. Mm-hmm. c'est dix-huit députés. Mm-hmm. si on perd également aussi lu mel ni euh, le département de Thiès c'est quatre députés dix-huit plus deux ça fait combien ça fait plus quatre du vingt-deux nga perte Tivaouane ça fait vingt-quatre d'office comme ça tu perds vingt-quatre députés comme ça. donc nag man pour man jàngat li président bi mu war a def moom mooy. yow fa jaar mooy yow waloo fa jaar. mais mais ce que je veux dire. Uh-huh. boo xoolee lu mel ni nda lu mel ni yëpp ñu perte ko te dans les autres communes o a on a perdu de façon lamentable Grand Yoff gi ma jógee ci la bokk. Hmm. je pense que ah, président dafa war a jàngat xam ne nag dans cette machine la il y a yoo xam ne véritablement baaxuñu ñu ngi ñu ngi yéexal ñu ngi yéexal euh, machine bi. donc nag am na si yoo xam ne il faut que ñu génnee leen foofu changé leen complètement dugal ay pièces yu il ne suffit pas nga dem di gis kenn kuy jaay benn pièce de rechange nga jël ñëw changé non non il faut radical il il faut changer ce qui performe nga bàyyi leen foofu mais ñi nga xam ne ñoom c'est devenu un produit périmé dangereux à la consommation dont les populations ont réfuté nangootuñ seen leadership nanguwuñ leen que loolu également aussi ñu mun ko comprendre percevoir ce message là parce qu'à Grand ya y a des jeunes loups comme ni ma ko mën a waxee ñoo xam ñu ngi émerger il y a des gens qui émergent il faut accepter le leadership de ces gens là et que ñoom aujourd'hui ñoom ñoo xew ñoom ñoo war a xew ak ñi nga xam ne peut-être ngi fi nekkoon ba voilà nañ seen temps def nañ le temps est révolu quelque part il faut changer la machine il faut changer les les pièces certaines pièces en tout cas de cette machine là pour que cette machine là continue à être performante changement yooyu sax euh, xam naa euh, du ñàkk euh, nouveau gouvernement bi peut-être dinañ ko ci gis ndax ñu ngi annoncé ne peut-être lu yaagul dara dama remaniement dina am foofu tam xam naa ñu ngi fay xaarandi ay changement bu ma ñëwaatee rek ci législative yi gis nañ ki nga xam ne moom mooy Pape Diop annoncé na dina rejoindre li di coalition bi nga xam ne kon wala boog groupe parlementaire bi nga xam ne Benno dina ko installé xetali na leen gannaaw bi nga kon bu ñëwee di ngeen am lii di euh, lii di majorité absolue bi ngeen doon wër euh, ana ralliement Pape Diop boobu noonu ah mais loolu c'est un ralliement très utile su ma nee très utile mooy maanaam bu am njariñ wax nga ne sauvé na la coalition Benno Bokk Yaakaar mais moi je vais aller au-delà parce qu'il a sauvé en réalité le Sénégal d'un certain blocage parce que euh, le discours de l'opposition ñëpp dégg nañ ko suñu ñëwee dañuy def li dañuy def li c'est comme si ce n'était pas une euh, une élection législative c'était comme si une élection présidentielle président euh, le président Pape Diop homme averti homme d'État qu'il est comprendre effectivement ni que tey l'intérêt de ce pays là lenn kese mooy la nga xam ni moom mooy li ci ëpp solo mooy réew mi dafa a nekk ci dal réew mi dafa a nekk ci jàmm réew mi dafa a nekk ci ci liggéey et que dara waru ko bloquer il a compris que c'est ce qu'il devait faire Et il l'a fait. Et nous ne pouvons que nous en réjouir également aussi. Et pour moi aussi, également aussi, il faut que ça soit un prolongement de euh, la réunification de la famille libérale. Parce que le libéralisme, c'est une idéologie également, vous ramenez aussi. Je pense que ça marche à tous les coups. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut réunir les libéraux pour que nous puissions dédier Parce que le Sénégal, il les libéraux. Je pense que le Sénégal, il A, il véritablement dans l'émergence. Parce que il a fait d'excellentes réalisations. yoo xam ñun ñëpp gis nañ ko Macky Sall bi nga ñëwee bi mu ñëwee son héritier il fait un excellent travail depuis qu'il est là au pouvoir en douze ans je sais pas en dix ans il a fait ce que passe ce que qu'un président de la République n'a fait une réalisation extraordinaire donc Pape Diop mhm. vraiment man mënuma lu luru rek euh, remercier ko su ma amoon sax euh, jot bi dëgg-dëgg damay dem ba këram euh, wàcceel ko sax kaamil ñaanal ko ja ndax man li mu def ni c'est un acte très fort il a posé un mhm. acte très très très fort parce que dëkk bi li ma la wax rek encore une fois. Mhm. li bi yi di wax di ko foowee di ci reetaan mooy léegi dañuy wax naan dëkk bu am gaz ak pétrole ah nga gis xale bu yor almet yaakaar naa ne waroo ko ko dégg boo ko déggee rek mu taal dëkk donc nag ñooñu c' est des sapeurs-pompiers le message et qui comprennent effectivement que la politique ce n' est pas un jeu d' la politique du ay saagante la politique du ay xaxarante la politique ce n' pas de l' animosité la politique ça devait être loo xam ne uniquement c' est pour servir la cité et tey il a compris que la cité tey kan la soxla c' le Benno Bokk Yaakaar parce que bo boolee wàllu ak boobu ñuy wax noonu wàllu ak Yewwi Askan Wi boo leen en tant que arbitre il a compris que le message est là. Le message du peuple se trouve dans le résultat de Benno Bokk Yaakaar. et il a répondu. ah waaw waaw yow yow loolu nga xalaat ralliement Pape Diop bi it am na ñeneen ñoo xam ne bokk leen gis-gis. mais je suis d' accord gisee wuñ ko noonu. je suis d' accord je suis man je suis d' accord. je suis ah. je suis un démocrate. je suis d' accord sur la diversité de la pensée mais également aussi du ci jël ay position par rapport ak la décision qu'a prise. euh, le président Pape Diop d'accord nous sommes dans une démocratie il faut accepter que nit ki tamit du li nga bëgg la war a bëgg est-ce que yow mii di prévoir ne que yow yaa baax yaa kii yaa mais est-ce que yow effectivement tu es comme ça parce que personne ne va se dire que je suis mauvais ah kenn du ko wax que véritablement ce pays là il a ce pays là a besoin de Donc, l'autre chose que je vais dire à ces gens-là qui critiquent et qui disent n'importe quoi au président Pape Diop, est-ce que le président Pape Diop, quand il campagne, nous avons Est-ce que nous avons dit campagne Est-ce que nous avons dit que si jamais... Non, mais, mais, mais nous sommes en politique. la politique. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. d'accord sur une que la politique, ce n'est pas une affaire si ni muy bouger noonu ngay noonu ngay gisee yëf changer et c'est normal parce qu'on a entendu ici ah des gens dire que euh, les anciens présidents du Sénégal dañ leen war a parce qu'ils ont trahi le peuple ils ont machin truc mais aujourd'hui ñoom ñooñu leen yaakaar pour ànd ak en politique parce que tey képp kuy le système le système mais Khalifa Sall boobu c'est l'incarnation même du système sénégalais parce que depuis s'il vous plaît mm. wala <laughs> kooku koy wax système kookoy système. Mhm. te pourtant yaa ngi ànd ak moom. malgré que mos nañ ko fi jiiñ ay malversation ak yu bëree bëri yoo xam ne c'est des antécédents yoo xam ne. Khalifa Sall il faut savoir yow nga nangu ànd ku mel noonu nangu ànd ak nga xam ne ne nga wax di waxee yow kay toppatoo wax jooju nga wax ba pare weddi ko parce que tey Pape Diop c'est un libéral il est revenu il est venu soutenir euh, voilà son camarade libéral ah. et voilà mais c'est comme ça il faut il faut accepter dañu war a nangu c'est-à-dire Ndofène euh, nit ñi il faut que ñu nangu ne euh, ñëpp mënuñoo wax ne weex na tàll am ñoom dañu ne weex na rek ñu am ci il faut accepter ça il faut pas avoir cette dictature de la pensée unique mooy li may bañ moo ni kii il faut que li nga bëgg bëgg nga ko mais nag il faut pas forcer les gens yow li nga bëgg ñu mën bëgg c'est pas comme ça le président Pape Diop c'est un homme averti c'est un homme d'État c'est il pas dans les détails franchement euh, junñu nga léegi si législative yi nee nga ne peut-être dañ ko jox euh, peut-être benn connotation présidentielle alors que nekkul ay présidentielle mais daa am ñu daa am ñoo xam ne dañoo jàpp ne peut-être comme côté opposition rawatina ñi ngi doon tudd léegi rek euh, jàpp nañ ne tey nii di législative yi dafa am ay enjeu dafa am c'est déterminant par rapport ak euh, fi ñu jëm 2024 parce que ñoom jàpp nañ ne tey njiitu réew mi si toutefois mu am majorité majorité bi nga xam ne sax euh, kon am na ko euh, ba noppi mën na sukkandiku ci assemblée boobu pour par exemple déposer déposer peut candidature loo xam ne benn je sais pas changer constitution bi lay doon pour jéem a présenter pour un troisième mandat ñoom loolu la ñu ko jàppee ba tax ñu jàpp ne kon législative yi dina am jeexital ci présidentielle bi ñu jëm xam nga man boo loolu boo ko waxee man dafa am fu muy jóge mhm. mu ñëw fekk si la xam nga mooy fan. Mhm. mooy bi ñuy voté euh, le référendum je pense très bien que c' en deux mille euh, seize ah su ma juum bi ñuy voté le référendum le, le la nouvelle constitution euh, l' opposition avait battu campagne ñu naan li yëp c' pour lewal mbirum góor jigéen ñoom ñoo ko doon wax mhm. te pourtant on a voté le oui a remporté. suula non ñoom ñi voté woon non jaral na leen def nañ campagne génne seen ay moyen du bu fu nekk di wax mais de 2000 boobu ba léegi est-ce que on a légalisé une fois fii ci biir réew mi l'homosexualité amul déjà pour revenir à ta ñoom yooyu ñuy prédire di ko wax nii tout mais ce n'est que de la manipulation pure et dure koo xam ne waxu la ne lii laay def yow nga bëgg a nekk ci ay jéntam di nettali ay jéntam ah, non xaaral maa ngi ñëw c'est-à-dire est-ce que lu tax mu leen di leeralal moom ah. ñoom ñooy ñan ba mu leen di leeralal ñoom nan xaar ba deux mais ñoom ñoom moomuñu réew mi mais le président république c'est lui qui décide moom bi muy falu moom moo ne woon bëggoon naa def bëggoon naa indi fii constitution bi mu toll fi bi mu ko defee aussi ñoom ñoo ñoon bañ ñoom dañ doon bañ ne noonu lañ doon wax et pourtant bu ñu ñëwoon wuy kon tey mandat yooyu kon problème mandat du am est-ce que nit ñaa ngi def njàngat boobu nous on a dit oui à ce référendum là on a dit oui eux ils avaient dit non et pourtant le mandat là était à sept ans suñ ko bàyyoon mandat yi sept ans lay continuer nekk sans parce que le mandat était illimité bi Macky Sall di falu ah les mandats n'étaient pas limités je ne sais pas si vous vous rappelez très bien Abdoulaye Wade avait changé cette disposition la indiwaat mandat yi sept ans parce que rappelez-vous lorsqu'on a voté la constitution de Abdoulaye le mandat était yóbbuwaatoon nañ ko cinq ans pour preuve qu'est-ce qu'il a fait il a fait un mandat de sept ans et un mandat de cinq ans si je ne m'abuse sept ans moom moo waral ñuy douze ans les douze ans de Abdoulaye il a fait sept ans et cinq ans sept plus cinq ça fait douze il a fait un mandat de cinq ans donc mandat yi cinq ans la waroon continuer pourquoi automatiquement les gens se retrouvent avec sept ans c'est parce que Abdoulaye il avait est-ce que les gens prennent attention à cela maa ngi c'est pour te dire que ñoom ils sont dans la manipulation Macky Sall si la constitution lui profère n'est-ce pas le droit d'avoir un deuxième quinquennat sur la la base de la nouvelle constitution. maa ngi non mais mais mais xam leer. mais ban dëkk nga dem yow ban dëkk nga mos a nul ne peut avoir deux mandats. successive. waaw ñaari toppalante. waaw question bi kay leer na mais à chaque de deux mandats. mais de pas avoir de deux mandats de cinq ans. Hmm. loolu mooy wax ji du léegi ce qu'il y a lieu de comprendre ban dëkk nga mos a gis mandat yoo xam ne dañoo weng manga mandat yu def ni mandat kay nii amul weng il faut que les gens comprennent cela en réalité parce que tey xam nga la la chose la plus terre à terre hmm. mooy cela li gën a grave hmm. ci du terre à terre ça c'est une chose très grave li gën grave dans un pays c'est quand la manipulation atteint benn proportion bu extraordinaire bu mooy ne que jël dëgg jël dëgg bu ko def fen jël fen bu ko def dëgg parce que c'est ce qu'il y a une vidéo de Barthélémy Dias qui dit que moom Macky Sall s'il se présente en deux mille vingt quatre du marche du nangam du sangam du nangam c'est cette même personne là le même Barthélémy Dias là mooy ñëw taxaw di waxaat ay waxi mandat mais s'il vous plaît mais Sénégalais yeewu leen. waaw léegi xam leen ñan ngeen amal affaire. vous avez affaire avec des gens qui ne sont que dans la manipulation pure et dure. soyez intelligents parce que vous êtes un peuple intelligent. vous savez ce que c'est véritablement luy dëgg ak lu dul dëgg tey le président de la république man de nee na nii wuy nii non man je m'en arrête là man nekkuma ci géntam musuma dégg muy wax leneen. li mu wax lay jàpp bu mu gisee leneen mais ñi nga xam ne ñoom ñi nga xam ne nag mooy indi coow li xam nga ne nii nii wuy am na droit wu troisième mandat Ousmane Sonko wax na ko dans une vidéo vidéo yaa ngi si dëkk Barthélemy Diaz il a dit dans une vidéo ñu wax ko ba mu leer ñoom ñoo wëññeeku ñu ñu ñu ñu wan ñu li ñu wàccoon ñu koy non. attends nii oui nii oh, nii non boobu daal euh, Séni mooy. man daal Macky Sall daal man moom personnellement dama lay wax benn affaire. man en ce qui me concerne man moom ci boppam Macky taxaw ne ne euh, moom ak yeneen leader ah ñu bëri ñu ànd ak moom. waaw bu ñu demee dans le passé taxaw nañ fi ne non bii la teg ñaar la mu ngi ci deuxième am la fini. Hmm. mais peut-être bu ñu àndee parce que mu wax ay oui non oui nanga nanga loolu mooy. mais Ndofène. mais la parole d'un d'un individu mhm. ou la parole d'un politicien mhm. lan moo ko ëpp doole la constitution moo ko ëpp doole moom lorsqu'il a voulu même écouter son mandat de sept ans à cinq ans mais la constitution ne lui permettait pas cela parce que constitution bi ko fal sept ans la wax constitution boobu sept ans la ko wax le constitution bi ko falaat en deux mille dix neuf boobu mooy bu bees bi kon xam nga li may wax bokkatul boole kenn wax lu lay wax bii bii moom wax ay waxi cinq ans boole waxi sept doon wax bii nii bu bees bii nii ñu ne nii mooy wax waxi mandat de cinq ans donc par conséquent nag il faut que nit ñi comprendre effectivement euh, une loi, elle n'est pas rétroactive, même si nous ne sommes pas des juristes. Ce que c'est le BABA, je pense très bien de la. Si l'on doit comprendre, Ce n'est pas parce que quand ça t'arrange, tu dis que l'île est moins bas, mais quand ça ne t'arrange pas, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon, ou les ni bas, ou ni ni ni ni Ce n'est pas comme ça. Dans la vie, tu sais que dans ce pays-là, nous n'avons pas, un problème de. Mais encore deux faits. <laughs> Dans ce pays-là, il faut que nous comprenions une chose. gis nga nous n'avons pas un problème de démocratie ah parce que bu dee démocratie am nañ ko ci dëkk mais nu avons un problème de démocrate parce que eux ils te parlent de démocratie ils agissent ils agissent en monarque ou bien en des gens qui aiment l'idéologie totalitaire mooy maanaam bi leen deex moom mooy am ci lool la ñuy dox ci loolu la ñuy wéy tey pour preuve am na ñoo xam tey boo leen xaraboon tey rek il suffit que ñu dugal la tey je pense très bien dans les réseaux sociaux rek ku nekk dina la saaga ni nga dëkkuloo foo dëkkul nan la la wax luñ la war a wax alors que ça ce n'est pas un jeu démocratique man je me dis souvent que nous de Benno Bokk Yaakaar nous sommes tellement disciplinés que moo tax euh, yenn indiscipline yi de l'autre côté màgg parce que bu doon gat sa gat sa rek nga mbaal ma ci kàddu yi kon àgguñu fi parce que nous incarnons la majorité nag nous avons de l'autre côté une minorité très bavarde très bavarde une minorité boo xam ne bu ñoom c'est voilà quoi ñoom ñoom ñooy la majorité ñoom ñoo gën a bees ñoo gën a baax ñoo gën a voilà quoi gën a sénégalais que ñun les autres mais nous on s'est battu pour en arriver là et aujourd'hui Macky Sall il fait un travail extraordinaire sur tous les plans tu peux voir quelqu'un qui est contre le Benno Bokk Yaakaar mais il te dit que man Macky bu nekkoon candidat je vote pour lui et que man personnellement man doo fen man président Macky Sall su su su su su su bëggee dama dama ciy jàpp dama ci rey sama bopp. waaw ah, mais su bëggul aussi dina ko bëggloo ah. su ma ko mënee bëggloo aussi dinaa que réew mi ça m'engage mu dem ñi bëgg mu dem aussi il faut ñu ànd ci ak xel nag xam ne dem na dem na dem rek moom ni mu ko waxee loolu taxu ko dem de. Mhm. fekk am ñoo am ñu ngi ñu ko bëgg xam nga sànq yaa ngi doon def benn affaire yaa ngi doon wax benn affaire bu am mhm. mooy jàngat bi nga def maanaam sur les législatives xam nga Ndakaaru gii moom mooy le Cap Vert nga dem ci Thiès gi moom mooy Kayor ba laaxaale Tivaouane mm-hmm. mais si tu vas aujourd'hui dans le Sine dans le Saloum dans le Ndoukoumane dans le Sénégal oriental la Casamance nga dem ba dans le Fouta le Waalo mais même dans le Bawol ah Ndangaan gi mais Macky Sall il est très aimé il a gagné partout mm-hmm. même Casamance bii ñuy wax nii c'est trois régions avec neuf départements Les neuf départements, on en a perdu les cinq, on a gagné quatre. Si tu fais le cumul des cinq et des quatre, nous les quatre, <laughs> on l'emporte sur les cinq départements gagnés de l'autre côté. Donc la Casamance est bien pour Macky Sall. Même au foot, un peu donc nag y' a des. mais Casamance moom feeñul bu fekkoon pour Macky Sall moom mu feeñ ci kii. non dégg nga li ma la wax nee naa la Casamance du benn dëkk. du benn gox du benn Casamance la ñuy wax. La Casamance, c'est trois belles régions. Trois régions, neuf départements. Nous pas dit Casamance, c'est une petite commune par rapport à certaines, certaines de la, de la Casamance. Même Kolda, ça y <laughs> Voilà quoi. On gagne partout. waaw Seyni bu ñu noppee ci loolu it euh, mën naa ñu aborder beneen question euh, au conseil des collectivités territoriales yi euh, bëgg nga caa bokk peut-être balaa ñuy dem ci nan ci bokkee ak yooyu damay laaj eh, lan moo tax nga jàpp ne tey man nga nekk membre au conseil des collectivités jërëjëf xam nga loolu am na solo parce que tey quand on parle de haut conseil de collectivité territoriales on parle de la terri territorialisation mais on parle de de décentralisation on parle de collectivité local mais on parle également aussi de tout ce qui peut amener les collectivités à aller dans nu ko waxteeti dans le développement et je pense que loolu ay waxtaan la ñu fay waxtaanee yu am solo ku ni man man je suis un acteur communautaire je suis président d'AEC je suis avec euh, les relais communautaires je suis tout ce qui touche à la communauté donc il n'y a pas une personne man ah je pense mieux indiqué que moi pour intégrer cette cette chambre là parce que tout simplement je sais je connais les réalités de notre communauté je connais les réalités également aussi des collectivités territoriales il y a beaucoup de choses également aussi qui sont yoo xam mu ngi suñu biir bopp te yaakaar naa ne buñ fa eggee nañ ay propositions yu yu ama am solo yu jëm ci fàllu wàllu euh, fànn woowu parce que y a beaucoup à faire dans le développement local il y a beaucoup de choses à améliorer dans la décentralisation également aussi bien vrai qu'on a des experts dans tous ces domaines-là ñu liggéey guddi guddi ak bëccëg mais ñun aussi am nañ suñuy xalaat yu ndaw yoo xam ne mën nañ ko ci boole et jàpp nañu également aussi bu ñu bokkee ci loolu noonu dinañ mën a gën vraiment gën a mën a taxawu askan bi gën a mën a taxawu Grand Yoff gën a a taxawu véritablement la nga xam ne moom mooy suñu suñu askan mais leneen a des gens qui te demandent ils disent qu'est-ce que ces gens-là alors que derrière y a pas une bonne communication et je pense que cette communication dañ ko war a mettre en exergue et c'est le mal également aussi de notre régime on communique mal ou bien nous sommes toujours dans la réaction alors qu'on devait être véritablement dans l'action pour faire comprendre aux gens effectivement que lii nii lii la jur lii mooy problème bi donc man HCCT comme ni ma ko waxee rek je pense très bien que y a beaucoup de gens présentement qui soutiennent ma candidature ma au choix du président de la République. ci loolu lay ñëw sax ana tey nan nga ci mën a bokkee tey euh, tànnee tànnee bi nuyu na. voilà comme ni ma ko waxee rek man je ne suis pas conseiller municipal le président il a la prérogative dans cette chambre là de choisir quatre-vingts Sénégalais yoo xam ne dañuy dem euh, bokk dans cette chambre là bokk si ñuy waxtaanee. maanaam wàllum ci wàllum décentralisation ci wàllum euh, développement local ci yu demee noonu. Mm-hmm. donc am na latitude boobu ñun ci loolu noonu nga xam ne am na ko ci loolu la ñuy sàkku ñun waa Grand Yoff yi muy jigéen ak ay jeunes ak ay mag yoo xam ne tey tànn nañ ma pousse ba ma li véritablement président buy tànn mu boole ñu ci ñi muy tànn ba véritablement liggéey bi nga xam ne wax naa ko sànq ni buñ fa yeggee ñu mun ko fa def. seeni ci sama laaj bu mujj rek tey ana ban assemblée nationale euh, la ñu war a am gannaaw bi nga xamee ne nag bii weesu euh, dégg nañ ci ay euh, mbir yu bëri mbir yoo xam ne peut-être sénégalais xam nañ ko jaral ñu si dellusiwaat mbir yu doy waar la tey ana ban assemblée nationale quatorzième législature moom la am moom ngeen ah, mais xam nga Ndofane il faut pas se voiler la face xam nga nous sommes les mêmes sénégalais nous avons toujours les mêmes attitudes et les mêmes aptitudes man je m'attends que à à l'extraordinaire je sais que rek assemblée bii nii ñu jëb dina nekk assemblée bu compliqué trop bu compliqué bu bëri coow bu bëri ay mbiicoog mbàccu man xam naa parce que tout simplement ñii dañu bëgg mu baax ñii bëgg nañ mu yàqu yaxet ba nga xamante ni deux mille vingt quatre kenn dootu ñu sax ñemee wax fii ne président Macky Sall lii wala leneen loolu moo fa on a on sait tous on a on entend ces la là parler de les gens de l'opposition la wax ñu dégg li ñuy wax ñu ngi dégg ay propositions yi nga xam ne bëgg nañ ko yóbbu assemblée nationale je pense que yu ci bari yoo xam ne ñu ngi koy xalaat xam nañ ni ñoom seen bopp yooyu bu ñu ko fa indi ay coow rek lay jur ay wax rek lay jur dañ mais c'est la politique comme on le fait Afrique dafa doy tu pars en France même s'il y a cohabitation mais les gens sont des démocrates xam na ne lii day doxal dëkk bi dañ ci nekk xam na ne de day indi problème ci dëkk bi duñ ko def il faut que les gens arrêtent de vouloir voter des lois yoo xam ni wala di bëgg a voté voté loo xam ni xam nañ ne en âme et en conscience suñu nekkoon au cœur de l' exécutif duñ ko indi comme proposition man xam naa ni assemblée bii di ñëw nii dana bëri coow trop bi ma bëgg na comme ni nga ko waxee mooy que les gens soient des démocrates ba pare qu'ils soient véritablement des citoyens sénégalais ñu bëgg réew mi bëgg réew mi jàmm bëggal waa réew mi jàmm dund gi cher na nañ dem xeex ngir ñu mun a wàññi dund gi nit ñu mën a dund convenablement location bi am na loi bi ñu fi woon am na problème ñoom tey loi yooyu la war a war a war a yoo xam ne de allégé la la la lu mu tudd le quotidien des Sénégalais mais dugg fii ngay naan da ngay dugg ci ay wax yoo xam ne vraiment ah nga ne bëreet boo duggee rek ngay wax ay amnistie ay nangam nag mais nañu attaqué les problèmes des Sénégalais politiciens nañu bàyyi di mettre toujours en exergue leur personne leur petite personne les politiciens nañu bàyyi xel bu baax a baax ni que askan bi dafa am li mu soxla. te li askan wi soxla ñoom ci lañ war di nekk tout le temps ndax nag politique politique rek politique chaque jour politique amul sens l'Assemblée nationale doit pas être une maison pour la pour faire de la politique ou bien pour faire la promotion d'une personne ou d'une personnalité non là-bas on doit y être tout simplement pour les Sénégalais uniquement pour les Sénégalais je suis contre même Sénégalais dem taxaw assemblée dafa làkk ay italien pourquoi boo làkkee pulaar ñu ne il est raciste nga làkk fa ay il faut que nous et qu'on comprenne qu'effectivement l'Assemblée là, c'est une Assemblée sénégalaise. Ce n'est pas une Assemblée pour quelqu'un d'autre ou bien pour, je ne sais pas moi, pour, pour un intérêt crypto-personnel. Non. Parfois, man j'ai le cœur meurtri quand je vois certaines personnes se prononcer, dire Wah, ça ne concerne pas les ay Intéressez-vous. Nous avons des lois qui sont tey Sénégal pour mu set nañ dugal ay loi yoo xam ne képp ku loo xam ne waroo ko def ci wàllum tilim wala gravats ci dëkk bi ñu amande la set nekk ci yoon prix yi nga xam ne xam ne war nañ ko mën a xool nit a améliorer prix yi ñu améliorer ko nit ñi am des prix accessibles yeneen yoo xam ne war nañ ko voter pour que vraiment mën a nekk ci jàmm mën a nekk ci quiétude mais ñu bañ nekk di dugal ay loi yoo xam ne ça n'intéresse que les politiciens. Serigne Tall la mooy nekk sa kàddu gu mujj. ah dafa warul jeex vraiment maa ngi gërëm di sant vraiment Ndofène ak équipe technique bi yëpp maa ngi leen di gërëm leen sant mais di gërëm di sant bu baax a baax sama mbokk yeeg am du jàmm yeeg ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi may vraiment di nuyu ñëpp daal bàyyiwuma kenn kenn kenn amul kenn koo xam ne rek bàyyi naa ko ak ñu ma àndal nii ànd ak sama tonton Papis Balde ànd ak sama petit frère Moussa Tall mais du ma ba fàtte benn yoon agistal Tall mi nga xam ne moom moo yor tout ce qui est digital di ci liggéey liggéey bu am solo ak ñoom Koutidio également aussi et puis bon tout le monde ah toutes ces personnes là qui sont autour de moi qui font un travail extraordinaire mais du ma fàtte benn yoon Mora Cissé parce que muy ñëw fii aussi waxtaan naa ci ak moom bu baax Mora déjà il appuie véritablement cette candidature là au choix du président mu ngi ciy appuyé bu baax ak yeneen responsable yoo xam ne ñu mel ni El Karim Fatmata Niamba ak également aussi les Moustapha Diémé et ils sont nombreux ils sont nombreux Eliman Anne voilà ñoom Pape Silla ils sont très nombreux derrière moi et qui accompagnent n'est-ce pas cette candidature ñoom Assane Sarr dama leen fàtte vraiment ñoom ñëpp ñu ngi ciy jàpp ñoom Awa Dieng ñoom xaritaal vraiment ñëpp ñu jàpp daal suma ma bëggoon nekk fii nag di suti ay tour xam naa ni mun naa am problème tudd naa ay tour xam naa ni naa problème sax vraiment ku lim jiw parce que doo matal mm-hmm. vraiment jërëjëf Ndofène kontaan naa trop ci émission bi macha allah mu lay jaajëfal xanaa rek euh, peut-être dans l'avenir dinañ la invité en tant que membre au conseil des collectivités ah, <laughs> territoriales euh, di jaajëfalaat bu baax kon mbokk internautes yi nga xam ne ñu ngi doon bàyyi xel euh, ci Sene Info di fàttali ne kon euh, Seyni Tall lañ doon dalal responsable politique bu APR ci Grand Yoff di chargé de la communication Benno Bokk Yaakaar foofu la ci Grand Yoff nekk membre bu pôle digital Benno Bokk Yaakaar nekkit président bu mouvement euh, leeru yaakaar di leen jox di daje rek kon lu yàggul dara ak beneen invité